Sénégal <laughs> ndax Sénégal dañoo toll ci dëkk boo xamante ni li lay def bàkkaar sa soppi ko Dakar. <laughs> di màcc ne maa ngi koy màcc dem Dakar te naa la à plus tard je suis en <laughs> ku ci ma Maxtaar gi. dañ koy ñaanal suñu borom. mu mhm. defal ko gudd fan. Mhm. Mhm. oustaz Maxtaar Sarr. yàlla leen suñu borom dafa gudd fan ak wér. ñii amul lu ñu waxul. ci réew mii ñu nekk muy Sénégal ci valeur indi mag ñi. mais lan la ñuy dégg lu ne la ñuy te pourtant dañu am famille. waaw waaw ba ma ne ku mel ni Mame mu jug taxaw xool li nga xamante ni baaxul ci société bi mu ne la lii baaxul ñu ne ko non Mame Makhtar Gueye da ngaa war a yem ci lii da war a yem ci laa bul dugg ci lii parce que lan la je n'ai pas habilité di wax ci lii ak lii. Mhm. moom moo tax mais bi mu méttee ana mu jugul. Mhm. Mame Makhtar Gueye ana ban combat la porté ci Sénégal. oustaz Makhtar Sarr amul ban combat la Pape mais est-ce que jàpp ne bi mais maa ngi lay jox maa ngi ñëw rek ñii laa wax ci nit ñi ñu taxaw si ñoom ba pare parce que bi mu mettee nii actuellement kaawam bii nii kan moo jug ci avocat yi ana le député du peuple El Hadj Diouf kenn ju kenn koo dégg ana ñi taxawoon fii bi ñuy jàpp euh, bi ñu nekk affaire Ousmane Sonko bi raa bi beeg yooyu ana ñi taxawoon fii ñoo doon défendre ana ñoom Françoise Hélène Guèye ana ñi nga xamante ne ñoo nekk TFM xam nga lan kan sama doomu baay yooyu ana ñu anañu. non Gabrielle kan moom dem mm-hmm. démb taxaw na ci bu baax. dama ne taxaw bu baax bi. Mm-hmm. ak continuer fësal dëggal moo nekk. Mm-hmm. association féministe. ñii man ñii laa gëm. Mame Matar Gueye laa gëm. Mame Matar Gueye moom day défendre carrément Sarr laa gëm. day défendre parce que gis su dee su dul gis nga ñii bu ñu leen ñaanalul gudd fan. ñaanalul ñu wér. billaahi wallaahi da gis ku ku jur doomam tëddee doomam. waaw yow kon réew mi yàqu parce que tontoo saay-saay yu fi nekk ci société bi. moom bi euh, bi bi bi bis bi bi kooku génnee def sorteem ba pare. Mhm. mais am na seen coordinateur bi nga xamante ni xam nu mu tuddati sax paa bu wi kaw di weex tàll. Mhm. mu waroon a dem jaamu ji yàlla. Mhm. mu naan non c'est à dire mais benn benn intérêt bu nekk ci leen di jël di leen di yóbbu na nekk fukki étoile. mbir mu dus dañu ne dañuy profité ci xale yi. bu baax sax. gis nga bi muy wax ci biir wax ji li ma ci gën a euh, duut baaraam ci wax ji xam nga lan. mooy bi ñu defee seen cérémonie boobu ba pare après ñu fexe ñu rejoindre euh, naar yi ci seen suite yi mais ku xam naar xam ni daal baaxul. waaw naar bëgg nit ku gis nga Sénégalais yi kaay ma yëgal leen de bee boo ngeen seen bopp naar. Sénégalais la gër bëgg jigéenu Sénégal. préciser bala ñuy daal suñu kaw. naar yi nga xamante ni. Oh, juddoo dama ne la dama ne la naar laa la wax. <laughs> ku ci seetu sa bopp na yaa gis naar. dëgg su ma nee Sénégalais. naar dañ lay fekk fii de waaye man dégguma sama rakk ni Mauritanie naar laa la wax. <laughs> non mën na bañ a nekk naar. naar laa la wax mais dama ne. Ah. mbir mi. Ah. xam nga li tax du aboutir du am du am suivi mais bu dee comme Mame Matar Gueye dugg na ci. Mhm. man xam naa ne dinañu am ndam. waaw dinañu am ndam de Mame Matar Gueye waaye nag dañ ciy profité. Mm. rendre hommage ci ay jigéen ñi nga xamante ni booba tey seen i papa yéen leen tuddee ak seen i ak ak seen i seen seen seen tonton yi. Mhm. Mhm. bëri na si kër yi wax. bëri na si kër yi occasion ngeen génn ngeen wax. bëri na si kër yi. ñaata ci école ngeen di gis seen i yi tëddee seen i ñaata la. Ousseyn. pourtant bi mu ko waxee bu sa wax na ko. Miss 1960 génn na. 2013 mm-hmm. euh, génn na. Mm-hmm. yoon la ngeen génn ngeen wax. Mm-hmm. bu boobaa ñu xam ni nag ñii am na ñu nekk seen ginnaaw mais ñenn ñoo ne seen ginnaaw. Sénégal dëkk bu jaaxaan la. nee naa dëkk la boo xamante ni yàlla ma yàlla jégal jégal ci ma. xale yi dañuy ëmbal. jigéen ñi dañuy tëmbal. mag yi dañuy xërëm. lépp ngir bëgg dërëm. billaahi wallaahi wataalaahi maa